bëgg rek leeral lu waral lii indi coow lu rëy li muy li ñu wax parenage parrainage du lenn lu dul boo waree dem élection te suñu réew mu ngi ko bind ci atum 1992 boobu ak léegi 92 ak léegi yaakaar naa mu ngi bëgg a yàgg ñaar fukki at ak juróom-benn mu ngi ci constitution bi. waaye boobu dañ ko jagleel rek ñi nga xam ne ay candidature indépendante lañ ñu ne leen yéen kat wala yéen boo leen bëggee nekk candidat élection présidentielle balaa ñu leen di nangu parce que dañu bañ ku jógee fële rek cëppi cëppi ñoo naan dama bëgg a nekk président de la république fekk ñaari nit topp ñu la te boo ko xësee nekk état bi dafay am obligation wut xaalis wut ay équipe télé jox la ko topp la ngay wax lu la neex ñaar fukki fan ak benn euh, te loolu yëpp la bulletin donc ci bu élection yi ñu ñu ngi milliards ak juróom-ñett législatives yi fukki milliards ak ñett liste ak juróom-ñaar yoo xam ni ci bureau bi doo xam bulletin bi nga parce que salle bi day fait bulletin couleur bu ne nga gis ko finalement yëpp nu couleur tellement dañu bëri élection locale yi ñu 2747 deux mille sept cent quarante ci ay liste presque ñetti junniy liste loolu mën na continuer bu yàggee démocratie bi day parce que mbiru koñ la woon mbiru nit ku jóg rek ne mën naa candidat te loolu yëpp état bi daf koy supporter ñu gis ne élection yi ñu génn muy législative bu Nous consultation bi ñu def ci conseil constitutionnel pour nous. wane ne ku mën a ku jël juróomi bulletin mën nga koo jël wote ji bu doon def juróom ñeent fukk yi ak juróom-ñaar yëpp ku ne war ko jël kon wote boobu daawul yegg kon wote député yi dañ koy reprendre at maanaam ñu dépensé si fukki milliards ak juróom-ñett war ko reprendre ak jafe-jafe yi mu mën a indil réew kon boo gisee lii raam jëm si ñag bi da ko war a artu laa muy indi musiba. kon bu ñu paree législative yooyu dëgmal présidentielle deux def lenn mën nañu dem ba am téeméeri candidat wala ñett téeméer ndax parti ñu ngi ci ñetti téeméer tey ku mu neex ku neex rek nga ñëw nekk candidat a ah, loolu ndax démocratie mën na mën na permettre loolu parce que la muy yàq day rey démocratie d'abord programme dootul am euh, waxtaan bu. bu bu bu bu sell dootul am élection yi ñu génn ci législative yi yéen a ngi fàttaliku ne finalement ñaari minute lañ doon may liste bu nekk ñaari minute ndax liste yi ñoo bare woon ñaari minute xam nga mënoo ci wax programme donc ñeent fukki list ak juróom-ñaar ku ne ñëw taxaw ñaari minute dem déjà mu ngi woon ci constitution bi waaye ñu ne rek indépendant yi ñoo koy def réforme bi ma légui indépendant ak ku nekul indépendant nek ci parti ño wara a yem même pied d'égalité manam ki parti indi wala coalition parti wala indépendant ñom ñep ñoo wara a bokk àtte ku bëgg nek candidat dal da ngay am parrainage bobu la coow li la bu njëkk ba dañu ne woon dix mille Sénégal fichier électoral bi ñaari million la won ak lu top tay ñu ngi ci juroom benn million ak juróomi téeméer junne peut-être dinañ dem ba juróom benn million ak juróom-ñaar téeméer wala presque sept millions on ne sait pas bu fekkee loolu am na nag ñu bàyyi kum neex nekk candidat su jafe-jafe amee ñun lañ koy ñun lañ koy accuser waat dinañ ne waaw gouvernement bi cuune la dégg nga ma xam mënuñ def dara parce que élection amul wala jafe-jafe am na loolu la moo tax ñu ne nañu def ni réew yu baax yëpp di def am na dëkk yoo xam ne ñaari candidat rek fa yam États-Unis d'Amérique atum lëmm ku bëgg te bokk ci parti da ngay xëccoo ci biir ba ñu xam ne yow mi kat mbër nga même làmb ji sax booy dem kay am na ay poids plume poids moyen poids lourd mais rek benn làmb nga siflendoo ñëpp taxawandoo kenn xamul kan mooy bëre kan loolu mënul nekk même làmb dañ ko organiser làmb dañ ko organiser par catégorie ñu bëgg lu toll élection présidentielle ku war a réew xam ne nit lay doon yor destiné réew di décider budget réew koy décider sécurité réew ak ah, ne candidat loolu mënul donc du defuñu ko pour kenn kenn d'ailleurs société civile cette bañ ñu toogaat waxtaan am na ñu may dégg ñu naan ñoom du ñu toog ak président Macky Sall kon de dinañ sonn parce que pour le moment président Macky Sall moo fi ne te toogul ak moom toog ak gouvernement am mais looy def mbedd mi mbedd mi mbedd mi mënoo si toog parce que foog oto yi dem di dikk foog nit ñi liggéey ak a ñëw te kon loolu looy def nañu delloo si xel yi te xam ne réew mi mooy décider askan bi moy décider politiciens duñu décider keneen du décider askan wi ku nekk sa carte joxe bi koy joxe confiance am ci kenn ñu fal ko loolu xam naa ko kon nag nañ rafetal jikko yi rafetal am nga sañ-sañ ne liberté jox la droit wax la exercer loolu tant que ñu ngi koy def jàmm rek ay am ku ne am na droit ne d'accord ma ci parrainage am nañ ci droit le neex sax wax lu leen neex liberté boobu constitution bi garantir na ko citoyen bu nekk waaye nag du ma amuma majorité te majorité bi fi nekk du wote loolu du mën a am kooku mënul nekk en tout cas daal yaakaar naa ni am na réew mu tudd Tunisie élection yi lañu ñu génn juróom-ñaar fukki candidat moo amoon xam nga loolu buñ fa yegg si démocratie mu ngi bëgg a yàqu boo demee France ñoom ay grand électeurs la ñuy wax ay députés sénateurs mënoon nañ ko def mais bu ñu ne ay député kon ñu am député ñoom rek ñooy am avantage mën nañ dellu ci askan wi askan wi ku mu neex nga pare ne ku la neex ne man diw mi kat candidat bi man bëgg naa mu nekk candidat nga bind signé loolu kay warul andi coow ak xuloo ku mënul am liñ ko laaj mu dem jàppale ku ko neex def nga amuloo c'est pas grave dama nga seet ci candidat yi am ku la si neex nga jàppale ko kon loolu warul am benn jafe-jafe warul am benn problème warul andi coow non plus maa ngi daal encore une fois wax nañu rafetal bëre bi

loolu dem ba tey mën nañ ko dégg parce que bu ñu dafa bëri ah mën nañ ko wàññi peut-être wàññi ci walaat wala genn wàllu walaat waaw yooyu yëpp mën naa am waaye yow doo wax li nga bëgg te kenn xamul finalement loo bëgg mais daal du fi amee du fi amee nag moom du waxu dara donc euh, vraiment ñu ngi maa ngi sant quand même société civile bi parce que dox nañu doxu jàmm

wala di ko ci donc je pense que waxtaan la bu a am ci diggante ñi lan ragal la Sénégal démocratie am toll tey na ñu am yuñ ci ñetti parti du du yoon ci Sénégal pas acceptable kenn c'est pas possible donc il faut ñu rationaliser parti il faut ñu rationaliser le jeu politique

le gouvernement am adopté nañu te it lu ko jiitu dañu def ay waxtaan décembre ba mars ñu ngi ci waxtaan ministère de l'intérieur jiite waxtaan boobu am ñu ne ñun du ñëw ci waxtaan boobu duñ toog ak ñi nangoo ñëw toog ñi opposition ñi li wax nous. ni ci pouvoir ni ci opposition ñi bokk majorité bi di waxtaan ba am blocage ñu wër seen personnalité indépendante ambassadeur Seydou Nourouba conduire waxtaan bi trouver ay consensus ak yoo xam ne nañu d'accorduñ ci waaye parrainage bi moom ñëpp nangu nañ war nañ ci def dara ndax wut wala bu na

ndax waroon nañ def réforme yi lu jiitu loolu kon lépp lu ñu def léegi lañ ko war a def comme ça ñëpp xam ne élection yi ñu dëgmal lii ak lii moo ni lay doxee mu leer nañ dafa war a leer balaa ñu dem askan bi tam xam bu baax nan lay doxalee wala bu ko defee je crois jàmm ne ñooy loolu rek moom laa bëggoon wax ci wàllu coow li am ci réew mi euh, ñu xam ne amul benn galgal bu ci laxatu amul lenn lu loo xam ne dañ ko ci def lu dul di fexe ñu bañ ëllëg élection yi bloqué ndax ay candidats yu bëri te buñ deful dara loolu dana am waaw loolu nag nee nañu gouverner c'est prévoir te loolu yaakaar naa ne képp kuy démocrate képp kuy xool njëriñu askan bi war nga mën d'accord ci mbir moomu ku nangul waxtaan nag wax dëgg yàlla sa liberté la ku ne man duma toog ak yéen man de duma la ci wax dara du la wax dara bëggoon toog ak man xayrun ma xool ñi bëgg a toog ak man ñu toog ak man ba bàyyi la sa ruq amul problème bëggoon toog continuer sa yoon bëgg toog waxtaan trouver consensus alors que lii waroon mën a am ñëpp d' accord si waaye nag bu amul itam amul benn problème bu amul nag ñu appliquer démocratie mooy loi de la majorité parce que loolu aussi mooy démocratie ñu demee war a wote loi ñu xool ndax majorité am nañu ko pour changer constitution wala changer loi soo ko amee nga doxal sa majorité ni muy amee ci àdduna bi yëpp loolu donc noonu rek lay mën a demee te incha allah noonu lay demee.